bon ça ça ça ça peut source de motivation mu am un, not autre saf avec un autre discours donc approche bi mën na mën na wute maa ngi koy dégg mu ngi ne mu naan xam na bu baax équipe xam na bu baax bu baax joueur yi mais euh, gis nga football. Mm-hmm. ki indi stratégie bi gën. Mm-hmm. moom lay wax sànq. il faut qu'on soit le répète dans la possession. parce que foofu la la je le répète tout le temps mooy clé wu match bi. ah mais Cameroun Cameroun Nigéria Cameroun moo amul possession. pour non non non non c'est à dire que j'ai dit il faut être mettre dans la possession et être clinique. Mm-hmm. parce que boo boolee ñaari yooyu <laughs> boo boolee ñaari yooyu da ngay gagné gagné match bi wax nga Seko Fofana wax. Euh, euh, mm-hmm. caissier et cetera et cetera mais notre équipe est capable d'étouffer même les équipes européennes. cette équipe du Sénégal. Vous êtes très confiant non non c'est pas c'est a, confiance on a, on a une oh, oh, yàlla xëy na tey bu yàlla ne du ñu gagné du ñu uh-huh. mais amul fooy nattee rek natt. Mm-hmm. ba gis fu Sénégal. Euh, Côte d'Ivoire ëppee ko euh, ko mm-hmm. du ci lenn. Mm-hmm. qu'est-ce qui vous inquiète alors dans cette équipe est-ce qu'il y a am na lenn lu ndaw loo xam mu lay inquiéter suñu équipe. ne pas sous la Côte d'Ivoire. mais équipe bi surprendre.